ban xalaat nga ci def. mais coowal assemblée moom il fallait il fallait s'y attendre il fallait s'y attendre depuis bi Ousmane Sonko waxee ne bu ngeen jubbantiwul réglement intérieur avant le 15 juillet. man du ngeen ma fa gis te pare naa pour dem defi ko feneen ci beneen assemblée boo xam ne du ay député dégg nañu après coow li ci jóg dégg nañu après li ci président de la république wax mais gis nañu quand même assemblée nationale euh, def liggéeyam. ba dellowaat lépp ba réglement intérieur bi taxaw. taxaw euh, entre nag bi ñu koy taxawaatal ak bi ñu koy promulguer def na au moins deux semaines et les gens s'étonnaient un peu. Mm. Euh, du moment que le premier ministre et dans une obligation constitutionnelle. parce que mi ngi ci biir constitution bi oui. de faire sa déclaration, déclaration de politique générale, devant l'Assemblée nationale pourquoi ñu war a toog ba gisaguñu Ousmane Sonko alors que le règlement intérieur a été mis à jour. Mm. c'était une question. député yi convoqué session extraordinaire la première pour mise à jour règlement intérieur assemblée nationale ça s'était fait président xaar jusqu'au quoi trente 30 30 août bi donc ko promulgué donc ça veut dire que am na deux semaines ci diggante bi. Mm. et pourtant on disait qu'il y a urgence. Mm. donc ça a joué un peu sur le temps. temps bi di gën a dem ñuy xalaat ne le 12 bii di ñëw effectivement euh, mercredi jeudi prochain oui. président am na euh, possibilité wu tas assemblée nationale oui. donc les gens se posent des questions est-ce que Ousmane Sonko bi bëgg na effectivement dem assemblée nationale. bien que euh, la conférence des présidents de l'assemblée nationale fixé na déjà date euh, oui, déclaration boobu démb la ko fixé. le 11 et c'est le président qui a saisi l'assemblée nationale. joxe ñeenti point à l'ordre du jour le quatrième mooy déclaration de politique générale. et la veille dégg nañu Ousmane Sonko la mu ca wax. député yi fii ak le fukki fan ak moo leen dese fii ak le dinañu tal leneen lu dul nekk assemblée nationale donc c'est c'est c'est déjà clair dans la tête que ñii dañuy tas assemblée nationale c'est déjà clair dans la tête que moom Ousmane Sonko parewul pour dem assemblée nationale di fa def déclaration de politique générale li fi nekk nag assemblée nationale député yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne xam nañu xel ne assemblée bi dañ koy tas xam nañ ko mais ils vont jouer leur rôle jusqu'au bout léegi nag problème bi am mooy la date du 11. oui 11 mercredi prochain. date boobee boo xoolee diggante saisinu président de la République le règlement intérieur en son article 97 def la ne il faut huit jours. Mm-hmm. huit jours yooyu ndax da ngay jëlaale le jour de saisine. Mm-hmm. ou pas. mais boo ko naree jël ça va tomber le douze boo ko narul jël peut-être euh, ci seen calcul huitième jour bi moo war a tomber ak le treize loolu tax ñeneen ñi ci waa Yewwi Askan Wi di la wax la date du treize mhm. mais c'est à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale peut-être de fixer les prérogatives violation règlement am na wala amul pour man li li am solo mooy y a une obligation constitutionnelle nañu fexe mu am ñu fexe loolu am que ñii jalgati nañu que ñii ànduñu ci que ñële ànduñu ci mais nañu fexe déclaration de politique générale yaa xeetu mu la mu am bien xam naa ne bu ñu bu tënkoo ci loolu rek pense que solution dina dina mën a génn on espère bien en tout cas après on verra si euh, Ousmane Sonko effectivement dina ñëw ou on espère en tout cas que mu ñëw afin que sénégalais yëpp mm, loolu mën a leer seen bopp ñu mën a xam fan la ñuy jëm euh, Mame Mbaye Ndiaye na nga def Yacine naka def yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm ba yaa ngi si jàmm. da ngaa nag de. ah de tardé man ñëw naa nag. yéen a continuer doon wax. ci mais def na leen signe faalew leen ko. ngeen li ñu doon wax dafa am solo. da ngeen bu dee dañ koy commenter mais li ñuy wax ba tey déedéet jëluñu sa temps ah. je désolé. yaa ngi def parce que ah. bu la fi fekkoon. yaas moo bu la fi fekkoon parce fii la ma fekk. 47 ah. waaw nga continuer ni wax rek ñu lay def siñ nga continuer. waaw li c'est pas normal non. si mais la prochaine fois da ngay couper. couper <laughs> na couper pièce yi moom ñu ñëpp jaajëfal ni ngeen di nekkee au rendez-vous. Euh, bu waxtu yu jotee ñu yëg ci kaw tribune bi jox leen seen dose. bi ngeen di teewoo ci wàllum information temps amatul dañuy yëg ci kaw tribune yéene kaay. waaw tey tey nuyu ma kenn dédicace ma kenn dañuy accélérer la cadence. tribune yéene kaay kan moo sa yéeg ñu ne président Bassirou Diomaye Faye fu mu nekk nii nag. la mu doon bañ mujj naa daal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéene kaay bee ka wax. naka la woote ñu tëgg session extraordinaire ñu jox règlement intérieur bi jox sañ-sañ assemblée nationale naka jàppal aw dat ngir Ousmane Sonko mën a dikk def déclaration de politique générale am xam nga fu mu nekk nii gem bi gem bopp la ci wàllu politique démb waa waa waa waa waa député yeew yi ñoo doon ñoo doon to ñoo doon balballu ci kaw député Benno Bokk Yaakaar yi. tey ji nag ñoom ci boppam ñooy xataraayu ñoom député yeew yi ndax jomaay nag nee nañu na mu la nii loolee nga xam ne moom la doon jéem a bañal Ousmane Sonko session motion de censure ak li nga xam ne mooy déclaration de politique générale mujj naa dal si kawam bañ bañ bëgg daanaka crédit bi di ñëw la 11 mooy date wa fa Ousmane Sonko dikk jàkkaarloog député yi def déclaration de politique générale lu mënta ñàkk la piège la bu nga xam ne ni daanaka premier ministre Ilmaani jëwriñ yi mu jël saa dal Moussa Diakhaté na on a été invité à prendre une date et c'est fait ndax règlement intérieur bi nga xam ne moom la ñu joyantiwaat la mu leen wax moo di date bii seen date la ñoom ñu ne comme sunu date la jàpp nañu le 11 septembre kon où est le Moussa Diakhaté ne kon nag Sonko le 11 la boo ko déggul tam mën nañ la ko vocal ñoom waaw Théodore Montaigne si on refuse que la DPG se tienne le 11 on devrait refuser que les trois textes soient examinés avant le 15 septembre yéen a bee ko wax. ah waaw. kii muy fanaan. ah tëjal buntu bi tëjal buntu bi wàcc sax du leen boole. waaw wàccee rideau defaral lal beek yooyu yëpp. dara du leen boole tëjal bunt bi war na mën a yomb. alors <laughs> damel gisuñu ko tey jii <laughs> coow li coow li. dinaa ñëwaat damay stand by li nga xam ne moom mooy DPG bi dem ci ASER. dégg te réew mi nag ay scandale kese la. tey scandalu ASER gii ah? waa gi xaawaale na riir a riir. réew m m ngay riir a riir <laughs> ah, na riir a riir. réew ma opposition bi de am nañ thème de campagne bi. on a sa azer gii. pour. non yaa c'est pas sérieux. na riir a riir moo tax scandale yaa ngi jollee fu ne. waa azer gii. Jean Michel Sène mii. tamit mooy njiit la. moom naka la dikk ñu nekk doxalal yéen kaay day wax mu buxati marché bi si waa Poe Sénégal jébbal ko waa Poe Espagne waa Poe Espagne nag mu nekk te am nañ ci bàjjen ci réew mi de quatre-vingt-onze milliards. vraiment yow Yacine yaa ngi fi nekk tëgg projet bi defar ne fii la war a jaar lii la ñuy def courant ba dina ñëw lii la ñuy def mambay dikk la jógee Espagne weextaal ñu buxati projet bi sa Yacine ne mambay doxalal. dalal jàmm. ne ko dalal jàmm. teraanga sénégalais 91 hmm. milliards. Hmm. lu garaaw. nga ne. ma ne lu garaaw moo fa xew laa ah? <laughs> la. ma ah, <laughs> xam nga dañuy xam nga giraawaale bi lu tax mu garaaw. Mm-hmm. dafa def loolu. waa AEE e point power Sénégal. waaw. Mm-hmm. waa ARMP léegi moo nekk ARCOP.